sëriñ Ahmadou Ndoumbé Xabbaan sancoon na ko te waxoon ci wax ju am solo jooju euh, kë kër gi nag xam ngeen ni mu baaxoo tënku ci ndigal jamono ji nag euh, ndigal li bokk ci tey ji bis bi nga xam ne baaxoo nañ koy amal ci at mi di ziar général euh, képp ku aju ci sëriñ Ahmadou Ndoumbé Xabbaan jamono bii nag bu nu yendoo ziar bi ci wàccaayu njàng alxuraan ak yi ci aju yëpp ba fi ñu toll xam ngeen ni baaxoon nañoo tënkante ak mbokk taalibe yi ay kàddu yi ak euh, ñaanuk sëriñ bi loolu nag euh, ci ndigalul euh, sëriñ bi nga xam ni moo teewee jotaayu sëriñ Ahmadou Ndoumbe Xabbaan ànd ak njaboot gi yëpp bis bi ñu koy nuyu di ko ziyaara bu baax di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko di sëriñ Ibrahima Khoudia Mbacké yabal fii rakam ju baax ju tedd ji di Serigne Cheikh Bintu Mbacke ñu di ko ñaanal moom itam yàlla bàyyi ko fi te wéral ko ak njabootuk Serigne Ahmadou Ndoumbe Xabbaan gépp ak donga yeeg ñëpp rek bàyyi kenn bokk yi jotaay baa ngi nii xam naa ni liñ ci bëggoon euh, euh, mooy yitte sëriñ bi nu euh, tënk ko ci diir bu tënkoo tënk sëriñ Baye Thierno Ngom dina wax ci turu daayira tarbiye yi moom itam xam ngeen ni di magum taalibe ci kër gi bokk ci taxawaay yi nga xam ni am na solo lool ci daayira yi moom tam xam ngeen ni incha allah dina jël kàddu ci turu daayira yi tarbiye yi bu euh, buñ ca noppee incha allah Serigne Fallou Gueye euh, Baye Sawru incha allah dinañ ko jox kàddu moom tam mu def benn euh, taxaw seetlu ci kóllëre ak lislaam xam naa ni incha allah liñ ci bëggoon lépp mën naa am ci ci yaatu jotaay bi du ko mate waaye comme borom xam-xam la incha allah dina cënd ay tënk yu ñu mën a jariñoo ci diir bu yàggul dara ci noonu xam naa bu noppee incha allah dañuy jox Serigne Koso Mbacke mi nga xam ne. Serigne Fallou Gueye bu ñu ci noppee allah dañuy jox Serigne Kosso Mbacke euh, mi nga xam ni mooy wax ci turu Serigne bi ci teewaayu Serigne Cheikh Bintou Mbacke ak njaboot gi yëpp euh, Serigne bi daal di ñaan ñu mën a yëkkati jotaay bi mbokk yi lii mooy kàddu yi nga xam ne wax nañu ni ci ndigal nañ ko feewatal bu ko defee incha allah kuñ fi joxul kàddu nga bañ fee ñëw di siif micro bi mbaa ab jàngkat loolu moom mayu ma ko kenn su ko defee kon jëlaat di ubbi jotaay bi ci ndigal euh, jox Serigne Cheikh Abdou Mbacke mu dalal kañ bismillah wa sallallahu wa sallama ala mustafa amin wa ala alihi wa sahbihi ajmahin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci turu kilifa yi ñu ngi nuyu mbokk jullit yi fa daje yëpp te di leen siyaara bu baax te di leen baalu xaq te di leen mastawu ci coono yoon wi di jëlee ci nuyoo bi ak siyaara bi samaahata Cheikh al Khalifa Cheikh Mountakha Mouhamadou Bachir di ko ñaanal baax yàlla guddal fanam ba àggale ko yéeneem di nuyu mbokkam bu baax mi ci biir di jëwriñu xadara bi ñu nekk Mawlana Cheikh Ibrahim ibn Cheikh Mouhamadul Xaban moom it ñaanal ko bu baax yàlla defal ko bi teewal ko fi muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñu gën koo mën ci sëriñ Cheikh Bintu mu ànd ak mbooleem njaboot gi yëpp ñu ràññee ci sëriñ Cheikh Fati Gueye sëriñ ak al imam sëriñ Habas ak mbooleem njaboot Cheikh Mouhamadul Xaban yëpp ñu ràññee itam teewaayu seen taw bu baax bi ci biir ñëpp ñu bokk masal ko yàlla dafa gën ko dolli wér muy Serigne Sam Mbacké Serigne Mouhamadou Abdoulahi mu ngi ak Serigne Mouhamadou Xari ak Serigne Jili ak mbokki donge yi ñu ànd yëpp ñëw teewal ak Serigne Ahmad ñu ngi teewal ànd ak Serigne Cheikh ak Serigne Koso teewal Cheikh Ibrahim ak mboolem njaboot gi yëpp di nuyu it bu baax mboolem cheddi si Modou Xaban yëpp ñëw nañ teewe bis bi di sëriñ bi nag seen bokk yu baax yi jëfe nañ aaya bi suñu borom wax astajibu lillahi wa li rasuli isa dahaakum lima yuhikum ñoom jëfe nañ aaya boobu ndax ñoom ñëpp subaak léegi teew nañ fi sëriñ Moussa Ba Mbacke mu sëriñ Mour Dieng di di jaay di sëriñ Ibrahima ak sëriñ Cheikh démb la ñëw mi ngi ci biir tànkam xaw a diis muy ñëbal njabootam sëriñ Cheikh ma sëriñ Fadal ñëw teewal ko ci ñëw teewal ko ci jotaay bi sëriñ Bakhafour moom sëriñ Xomar moom sëriñ Modou Mamoun moom it fa la yàgg ànd ak Serigne Gallas Moussa moo roqee am délégation bu tokk jóge Daaru Salaam ndax Serigne Omar suñu war a xabaar ak sëñ Baar sëñ Moustapha moom Baye Cheikh Serigne Seynabou suba yëbal na fi délégation bu takku sëñ Baara jiite sëñ Modou Xabaan ak mbooleem njaboot yi ñu àndal yëpp suñu bàyyi sëñ Modou Mbacke ñaaxal ku ne xam ne at mu jot daan teew fii ren màggee jàpp ko ab tànk yoo xaw a diis mu yebal sëriñ Modou Xaban mu ànd ak sëriñ Moustapha ak mboolem jàpp ko ñëpp ñëw teew sëriñ bi itam ñu mu la taxawaayu presse bi ñoom ñëpp nañ ko defee woon ñëpp ñëw nañu waa télévision Rafah TV teew nañu waa Touba euh, Touba Vision ñoom itam teew nañu ànd ak mboolem si internet yi ak waa presse bi nekk diggante Touba ak Mbacké muy ak Lamp Fall FM ak Diso Maam ak RCAP jàmm rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba ñoom ñëpp teew nañu ànd ak ñoom di ko def en direct waa ko sëñ Sula Diagne ñoom itam teew nañ fi ci ñu ci njiital sëñ ànd ak mboolee mu takku monsieur le maire Pape Silane moom itam fi la yendu noonu fekk jotaay bi waaye it dab ko moo tax mujj daal yeewee ko waaye fi la ñu ne bëgg seeg sëriñ bi saafante ak moom sëriñ bi itam ñu leeral la ñu leeral la teewaayu ñetti jëwriñ yoo xam ne li liñ daj ci bis bi amaana néew néewoo bu ko ci dëj toon bu baax de waaye kon lu bare bare dana sooxe muy El Hadj Baye Cheikh Guèye moom sëñ Modou Xabane keroog bi ñuy jàpp cher bi poroxaan la ko fekk mu jóge poroxaan ñëw Touba am na ñun ci bis bi ca ba ñuy dem Kayel ba ñuy dem ci commandant boole mu doon toppatoo jëm ci bis bi mu dagg yitte yëpp ñëw ànd ko ñun démb bi courant bi coupé bi ko woowee dafa ci kilifa ya daal di ko réglé ci sensé bi mu xëyee itam andi na fi teraanga yu bare bare bare bare def ko ngir jëm Cheikh Mouhamadou Xaban ak sëñ Ibra Xujja jafal ko njaboot gi yëpp kon moom itam ñu koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla gën a yàggal taxawaayam ci kanam njaboot gi ah, sëñ Touba Dindey Baas ñoom itam ku ne xam ne gis nañ ne bâche bi ni mucc ayib Cheikh Gueye démb bëkk bëkk ba léegi mu ngi fa di bâche bâche bi mucc ayib lool mu defal ko Sëriñ Ibrahima defal ko njaboot gi yëpp sant bu baax te gërëm di ko ñaanal yàlla gën a yokk ba léegi ci coono mosolo baat yi ak camat fawa kayi ko toppatoo moom itam daaw defoon na ko ren defoon na sant bu baax te gërëm di ko ñaanal yàlla yokk ko bu baax baax a baax taxawaay itam sëñ Mamour Gueye mu bàyyi Cheikh Gueye sëñ bi ñu leeral ko bu baax ñu doole ko ñaam taxawaayam rafet na lool mbooleem ba jàppoo ci siyaar bi lépp la ci presse bi yëpp moo yëkkati xaalisam fay ko moo yëkkati xaalisam ko ba noppi tey mu togg teraanga yooyu yaatu ci Touba andi ko moom itam ñaanal ko bu baax yàlla gën koo yokk gën a yokk taxawaayam mboolem commandant bu Kayan ak bu Mbàkke def nañu rapport ñu ñëpp àndandoo def nañu rapport bu takku soo ba léegi ñu fa di liggéey liggéey bu am solo ñoom itam ngeen ñaanal yàlla yokk seen garab te yokk ni ko suñ Mamadou waxee kaddu yi noonu rek lay noonu rek lay tëddee mi nga xam ne mooy wax ci turu daayira bu mag bi nga xam ne ñoom ko bis bu tëdd bi bis bi yàlla barkal ko mu dem ba laax ay dawaay yu jeex ñoom itam mbooloo mi sos jëf ji suñ Thierno mooy wax ci turu mbooloo moomu bu noppee suñ Fadal Gueye mi nga xam ne sëriñ bi moo ko tànnoon ci at yee di ko def loo waxtaan ren itam bu ñëwaat defal conférence bi conférence bi nag thème bi ren mooy alwafa fil islam kuréel ni ko islam bi yittewoo ak ni ko soxlaa ak ni ko ñoree moo indi ci exemple ci mag ñi ni ko doon saytoo ak ni ko doon ci nekkuk sëriñ bi bi ak bay sëriñ bi génn àddina a mën a jàngate ak ci war a jëlee na ko ci tomb bu am solo xam naa waxtu waxat waaye incha allah lu ci mën a xaj dana ko ci xajal bu léppee sëriñ Kosso Mbacke mi nga xam ne sëriñ bi

wa kullu aamin wa antum bi xayr assalaamu yi nga xam ne ñoo nekk fi jotaay bi ñoom ñëpp di leen ñaanal ñu yàgg koo teewe ñu ngi jiital ci wax ji nit ñi nga xam ni ñoo nekkan ci bopp daayira yi muy njiit ci sëñ euh, daayira muy sëñ Taara ak Ibrahima Fall ak mboolem li nga xam ne ànd na ñoom te lu jiitu di ñu ñu ngi sàkku ci yéen ñi fi teew ñëpp ñu ñaanal leen Eh, ak njéggal ak yërmande suñu borom subhaanahu wa ak bépp jullit bu mu fa bokkal nekk yàlla ko sama borom def ginnaaw loolu ñu ngi nuyu waa daayira bi yépp moo xam bi jóge Touba di daayira tërbi yi ak mboolem foo xam ne daayira jóge na fa ñëw ngir bis bii wax ji itam ci ñaari rek leen koy tënk muy wàllu sant ak wàllu ñaan sant gi ñu ngi koy jiital ci sunu waajur yi nga xam ne ñoo ñu yëkkati woon jox nu Cheikh Amadou Xaban Mbacke rëcc wuñ ko te li ñu defal tabaarakalla ku xool gis ku déglu dégg sant nañ ko bu baax a baax a baax sant nañ ci suñu borom bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla euh, suñu borom doole ay maqaama ak i tedd nga Cheikh Amadou sant nañ ko bu baax a baax a baax sant suñu waajur yi nga xam ne ñoo ñu yëkkati woon jox nu Cheikh Amadou Xabbaan loolu ñu koy sant bu baax suñu borom subhaanahu wa taala euh, waa daayira bi itam maa ngi leen di jégalu yéen ñëpp ndax nit bu nekkee ci kanam du ñàkk ay njuumte te njuumte yooyu itam mënut a ndax matadik doomu aadama kon nag maa ngi jégalu di jégal ñëpp itam suñu borom subhaanahu wa taala ku fi ñëw. nga xam ne daayira nga yor andi ko fi yàlla sama borom nangu jëf jëf te bu koy nangu na ko Sëriñ Tuubaa ñaane woon ca jaalibatul maraq faqbalhum minhu faqbal minhu fatan na munasaqatan wa xubbi xayran naa li dina amali noonee mu waxee suñu borom ne kon nangoo ma sama xasaayit gi bu seet dara lépp nangoo na ko yàlla na ko suñu borom nangoo leen noonu jëf yi fi jën indi mbooleem ku fi indi daayira yàlla ko sama borom nu ngoo noonu te bu ko nu ngoo noonu ne ko yëwee ci jëfi jëfi sëñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke kon ñu ngi sant ñëpp ginnaaw loolu ñaa ngi sëñ bi ñoo ngi sàkku ñaan bu baax a baax a baax ci wàllu wér wàllu wërsëg wàllu xiiwal boo xam ne dinañ ko mën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ni ñu ko bëggee te seytaane bañ ci amu yoon ñu ngi sant bu baax a baax sant nañ si Ahmadou Xabaar bu baax sant gi mooy bi nu yàlla yëkkatee jox nu Cheikh Ahmadou Khabar te njiit mënut a ñàkk koo gis rek am na ku mu àndal kon nag bu la yàlla boolee bu baax da nga koy sant bu baax a baax te wóor na nu yàlla boole na ku baax ku baax kooku itam ñi nu fi bàyyi ñu baax la kon ñu ngi ñaan loolee law ba ci doom yi law ci sët yi law ci taalib yi yow ci ñëpp kon wax ji mu guddal sëñ bi sàkku nanu ñaan ci mboolem daayira yi kon Euh, wax ji mu gudd foofu lañ ko yemee waaye waa daayira tërbi yi boo xamee ni delloo na Tuubaa jàmm le 15 bii di ñëw moom du am ba ca topp nag incha allahu muy weer wii di dee bi ci topp le 15 boobu dañ ko daje kësin mu du xabaan bàcce ne ñëpp teew ndax ku tàmbali ab liggéey daaw ba ren ñëw waat xat liñ jébbale xamoo ko li tax ci kees gi xamoo soo ñëwee foofa da xam ñu ngi jégalu loolu lépp waxtu moo xat kon euh, ñu jàppee ko noonu. mu ngi leen di baalu àq itam. nee na di ñaan ñëpp maase baal ko àq. te xam ne jotaayam fii. Cheikh Ibrahima Khoudia Mbacké. bu Masaana toll fii. génn teewal boppam. mooy génn teewal boppam. sant mbooloo mi gërëm leen. sant mbooloo mi gërëm leen. ñaanal leen. ñaanal leen. kàddu mu daan jottali nag. kàddu yooyu mu daan jottali nag. jotaayam fii tey. mooy jéem a jottali kàddu yooyee. mooy jéem jottali kàddu yooyee. kàddu yooyee nag la ca mooy ñi mu àndal ñëpp. mooy ñi mu àndal ñëpp. ci wàllu njaboot gi. ci wàllu njaboot gi. wàllu taalibe yi. yi. mu ngi fab kàddoom. mu ngi fab kàddoom. boole ko kàddu njaboot gi. boole kàddu njaboot gi. di nuyu sëñ Muntaxa Mbacke xalifa général di siyaare sëñ Muntaxa général de di seddali seen kóolute ci moom. ci ñoom ci moom. ak seenug taalibe. ak seenug ak seenug cofeel. ak seenug cofeel. ak seen kóolute. di ko ñaanal yàgg fi. ak wér. ak wér. tal. ak mottali li mu yéene lépp. ci diiney lislaam ak kër seexul xaddim di nuyu njaboot ak seexul xaddim gépp buntu kër sëriñ Tuubaa yépp góor ak jigéen mu ngi leen di siyaare di ko ñaan moom itam di ko ñaan moom itam ñaanal ñaanal ko ñaanal njaboot gi ci ginnaawam. ñaanal njaboot gi ci ginnaawam. ba tool bi nga xam ne moom la fi suñu ba nga xam ne tool bi nga xam ne si moom la fi si Ahmadou Ndumbe bàyyi woon. bàyyee ko ay doomam. bàyyee ko ay doomam. mu dem bàyyee ko sëd mu dem bàyyee ko sëd yi. mu ni ca kanam. Cheikh Ibra Khoudia Mbacke ne ca kanam. ñu ñaanal leen moom njaboot gi. ñu leen moom njaboot gi. kër sëñ Mandumbe googu. googu. ñu téye ko téyen wu rafet. ñu téye ko téyen wu rafet. na ko seen maam ya ak seen baay ya téye woon. ñu ngi koy ñaan moom xalifa général mu ñaanal ko njaboot gépp. nee na mu ngi nuyu mboolem taalibe yi gépp. ci ndigalal sëñ Ibrahima Khoudia Mbacke. mu ngi leen di sant. mu ngi leen di mu ngi leen di gërëm. mu ngi leen mu ngi leen di ñaanal ndax bis bi yàgg nañ koo taxawal saa bu dikkee lam ca bëgg lépp mu am ko nam ko bëggee lam ca bëgg lépp mu am ko nam ko bëggee loolee nag la ko waral kenn ku ne wet ga nga féete kenn ku ne wet ga nga féete la la ca war la nga ca man nga def ko nit nag boo ko defee lu boo ko defee lu baax sant la gërëm la ñaanal la loolu rek la man ta ngi leen koy defal waaye kenn ku nekk waaye kenn ku nekk lang ci yéene lang ci yéene lang ci jëf lang ci jëf yàlla mi amul kumpa xam na lépp yàlla mi amul kumpa xam na lépp kon nag yàlla mi amul kumpa kon nag yàlla mi amul kumpa te def ngir moom te ngeen def ngir moom am na fay na fay yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla fay. leen lu kawe seen jot. te fay leen lu kawe seen jot si jëf yooyu. bépp jëf bu fi doomu aadama andi. doot bépp jëf bu fi doomu aadama andi. yal na ko sunu borom gërëm. defar ci jëmm yi gudd fan. defar ci jëmm yi gudd fan. ak wér. kenn ku ne la ngay liggéey. kenn ku ne la ngay liggéey. sunu borom def ci jàppandal. sunu borom def ci jàppandal. def ci barke ba lépp loo yéene na ko bëggee nga def ca lu kawe sa njortu ñi nga xamee ne si ñooy daayira itam sëriñ bi nee na daayira yëpp egsi nañ kenn ku nañ kenn ku ne jox nañ la tontu nee na tont li nag li ko waral boo nekkee ci mbooloo. boo nekkee ci kanamu mbooloo. ñu jiital la. ñu jiital la. jox la seenu ñaq. jox la seenum ñaq. ne la jébbale ko. ne la jébbale boo del see tontu. boo del see andi tontu. ñane sa ginnaaw na ñane sa ginnaaw. danañ xam ne seenu liggéey àgg na. loolee rek moo waral tontu li. waaye bu toon loola du ko jar. nee na mu ngi sant taaliba yëpp. te di leen gërëm. te di leen xamal ne daayira. di leen xamal ne daayira. du addiye. du addiye. daayira. daayira. àllarba la. nit ñi dañ daa nekk ci joor gi. nit ñi di ci bay gerte ak dugub. di ak yeneen meññeef. di ci def toolu àllarba. di ci def toolu àllarba. di ko yët seenub sëriñ. léegi bu ñu demee ba léegi nag bu ñu demee ba nga xamee ne si. tool yi li ci ëpp ci taax la nekk. tool yi li ci ëpp ci taax yi la nekk. ñoom seeni tool ñu def ko. ñoom seeni tool ñu def ko. àllarba àllarba muy daayira. kon nag ku ci bokkul kon nag ku ci bokkul ci daayira. jéemalewut daayira. jéemalewut daayira. boo boo ko bokkee itam. warteef bañ fa bañ fa saxal. nga fas yéene koo def. ku amul daayira itam. itam. ngay wut addiye addiye ak bu jotewuñu dara bul joxe sa tegu daayira yam ca rek dafa ne àddina wóoru la tollu àllarba la kon nu ngi sant ñëpp te di leen gërëm di leen wax ne moom mii ci boppam moom mii ci boppam dafee wuutu Cheikh Ahmadou Ndoumbé di Cheikh Ahmadou Ndoumbé mu liggéey. keroog ba mu wàccee liggéey. Cheikh Modou Moustapha jébbal ko Cheikhul Khadim. jébbal ko Cheikhul Khadim. ak boroomam. ak boroomam. dafa wax ne. dafa wax ne. lan bu yaa yi àndoon ak Cheikhul lan bu yaa yi xam ne si ñoo àndoon ak Cheikhul Khadim. Cheikh Ahmadou mii moo ci desoon. Cheikh ci la bokkoon de. ne ci la bokkoon de. dani moo ci desoon. kon nag da doon liggéey. kon nag da doon liggéey. liggéey boobee mu doon liggéey nag. liggéey boobee mu doon liggéey nag. jugu fi tool bi it fi. tool bi it fi. kon nag. kon nag. képp ku ñuy tudd tudd képp ku ñuy tudd rek du tudd Cheikh Ahmadou Ndumbe. xamal ne biir tool boobee yaa ngi ci biir. xamal ne biir tool boobee yaa ngi ci biir. boo ko defee la ca boo ca defee la la ca war. xam nga xam nga ko. soo ko deful. xam nga ko. te moom te moom. dafa nekkoon ci yoonu jub. dafa nekkoon ci yoonu jub. yoonu jàmm yàlla. yoonu jàmm yàlla. tee diineem. tee diineem. tee ngorom. tee ngorom. teeg taalibeem. teeg taalibeem. nangoo liggéey. nangoo liggéey. lu mu ci am doyloo ko. lu ci am doyloo ko. lu mu ci ko seexul xaddim rek. lu mu liggéey bu sottee mu joxe ko luñ ko jox mu joxe ko. waaw tool boobu mu fi bàyyi woon nag. too waaye nag tool boobee mu fi bàyyi woon nag. ana ñu koy bay fi koy bay fi ne nii. ndax doom ndax doom nekkatu fi. sët yee fi nekk sët yee fi nekk. sët kenn ku nekk seet boppam. nag kenn ku ne na seet boppam. ba xam lu mu jëlee ci sëñ Mandumbe nag. ba xam lu mu jëlee ci sëñ Mandumbe. lan la ci jëlee lan la jëlee ci Seex Mandumbe. bu dee jub bu dee jaamu yàlla bu dee taalibe bu dee nangoo liggéey bu dee nangoo joxa yow mi tudd Cheikh Mandoumbe lan nga ci war a donnee ci cër yooyee moom si Ahmadou loo ci donne rek kon woon nag kon nag loolu mu fi bàyyi woon buñ ca nekkee buñ ca nekkee mooy tax Cheikh Ahmadou Ndoumbe mooy tax Cheikh Ahmadou Ndoumbe fa mu féete woon kër ci kër Serigne Touba. fa mu féete woon ci kër Serigne Touba. ñu féete fa. lam doon def lam doon def. ñu di ko def. ndax moom nekkatu fi. ndax moom nekkatu fi. doomam nekkatu fi. doomam nekkatu fi. waaye ay sëtam waaye ay sëtam a ngi fi. ñaandoon ak Cheikh Ahmadou Ndoumbé. ñaandoon ak Cheikh Ahmadou Ndoumbé. ak Cheikh ànd ak Cheikh Modou Xabaan. ñoo ànd ak sët yi. ñoo ànd ak sët kon ñi nga xam ne ñooy xeetu sët yi. nga xam ne si nag ñooy xeetu sët kenn ku nekk na teg Cheikh Ahmadou Ndoumbe ca kanamam. kenn ku ne na teg a Ahmadou Ndoumbe ca kanamam. muy roy teefam muy roy teefam. ndax doy na roy ndax doy na roy bu dee ci diine. bu dee ci bu dee ci taalibe. bu dee ci taalibe. bu dee jub. bu dee nangoo liggéey. bu dee nangoo liggéey. bu dee nangoo joxe. fan yi ñuy royee képp ku baax. fan yi ñuy royee képp ku baax. lépp dajale na ko. kon nag ñi ñuy tudd kon ñi ñuy tudd nag di tudd Cheikh Mandoumbe. nañ teg Cheikh Ahmadou Ndoumbe ci seen kanam. nañ teg Cheikh Ahmadou Ndoumbe ci seen kanam. muy sa rëyteef. muy fa mu tegoon tànkam ñu teg ko fa. fa mu tegoon tànkam ba ñu teg ko fa. lam doon wax ñu di ko wax. lam doon def ñu di ko def. ñi ànd ak ñoom itam. ñi ànd ak ñoom itam. jéem leen a topp ca lool jéem leen a topp buñ leen ci toppee. buñ leen ci buñ leen ci topput. ñoom nañ tege ci yoon wa ta dox. nan ñoom nañ tege sa yoon wa ta dox rek. boo tegee ci yoonu dëgg ta dox. boo tegee ci yoon dëgg ta dox. boo gëstoo da nga gis ku la dar. ku la topp ku la topp. kon nañ jéem a nekk ci foofu. nañ jéem a nekk ci foofu. taalibe itam. taalibe itam. kenn ku nekk na seet kenn ku ne na seet ci digganteem ak boroomam. te xam ne suñu boroom. nit ñi fi fi andee. jaamu yàlla rek moo tax mu andi fi. kon nag kon nag. lay tax ñu mën a rafetal suñu jaamu yàlla. lay tax ñu mën a rafetal sunu jaamu yàlla. rafetal suñu diine. rafetal suñu diine. rafetal suñu ngor. rafetal suñu ngor. rafetal suñu taalibe. suñu taalibe. mooy nangoo liggéey. ndax liggéey. ndax liggéey. ci nga mën a am lu lew. ci nga mën a am lu lew. loo xam ne boo ci jëfalee yàlla. loo loo xam ne boo ci jëfalee yàlla. yàlla dana ko nangu soo bëggee loolu suturaw man nga ko cee am soo bëggee rafetal sa taalibe man nga ko cee am boo bëggee rafetal sa ngor man nga ko ci am te borom kër gii nañ xam ni fii doon toon kër xam ne fii doonu toon kër ay tool la ay tool la yu mu doon liggéeyal yàlla mu doon liggéeyal yàlla ba wàcc mu mel nii nii tey ñu xam ne kon lépp lu mu am. ñu xam ne lépp lu mu am. joxe boppam. joxe boppam. lu mu am joxe ko. lu am joxe ko. loolee la amee lii mu am. kon nag la mu ko amee. kon la mu ko amee. ci diggante ak boroomam. ak digganteeg Cheikhul Khadim. ñun ñépp kenn ku ne loolu lañu ñu a teg sunu kanam. def ko muy yitte yi. nee na bu nu ko defee lu nu bëgg fii danañ ko am la ragal fële duñ ca gis dara àjjana yombul ngërëmal yàlla yombul deesu ko faraatu képp ku la ko yombalal yéene wala ko nee na de nee na deesu ko faraatu deesu ko tappale képp ku ko am ku xam nga la ko may. kenn ku nekk na kenn ku nekk ci ñun ñii ñëpp. na càmbar boppam. sa digganteeg sa borom. sa digganteeg sëriñ bi. sa digganteeg dëkkandoo yi. ba xam la la ca war def nga ko. wala la ca war defoo ko. nee na kenn ku nekk na set boppam rek. ne sëriñ bi ci boppam. lim bëgg. lim bëgg. ay maamam ak baayam. ay maamam ak i baayam. fa mu tegoon tànkam. fa mu tegoon tànkam. mu teg fa tànk. ku ko àndoon ak moom ku nekk nee na ku ànd ak moom itam. loolu la bëgg nee na loolu rek la bëgg nga ànd ak moom. ndax sëriñ bi ci boppam. ndax sëriñ ci boppam. muy Seexul Xadiim. ña ànd ak moom. ña ko ci gënal. ko ci gënal. ñu gëm yàlla. ñu gëm yàlla. te jub. jox ko seen bopp jox ko seen bopp. nangoo jaamu yàlla nangoo jaamu yàlla. nangoo koo liggéeyal nangoo koo liggéeyal. nangoo koo jox seen alal nangoo koo jox seen alal. lu leen liggéeyal ñu def ko. luñ leen tere ñu ba ko. nee na ñooñu dafa wax ne. boo liggéey. duñ neena isaab fii ci àdduna. nee na duñ leen isaab fii ci àdduna. duñ leen isaab àllaaxira yi. nañ fexe nañ fexe ba nag. nañ fexe ba nag. kuréel boobu xam ne sëñ bi moo ko gënal ci mbooloo mi. kuréel bi nga xam ne si moom moo ko gënal si mbooloo mi moom Cheikhul Khadim. nee na ñu bokk ci kuréel boobu. mooy jub mooy jub. jaamu yàlla jaamu yàlla. dénkaane sa bopp. dénkaane sa bopp. liñ la digal nga def ko liñ la digal nga la tere nga bàyyi ko liñ la tere nga bako. nangoo liggéeyal sëriñ bi sa alal. nangoo joxe sa alal. nangoo doyloo la la yàlla jox nangoo doyloo. la yàlla la yàlla jox. sëriñ bi mbooloo moom moo ko ci gënal. nee na sëriñ bi mbooloo moom ko ci gënal. ñeneen ña ca tege. nee na ñeneen ña ca ko jox seen bopp. ña ko jox seen bopp. di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. di ko jox seen alal. di ko jox seen alal. mu bu ñu leen isaabee àddina yi. nee na bu ñu leen isaabee àddina yi tama. duñ leen isaab àllaaxira. nañ fexe ba nag nañ fexe ba nag ñun ñii. isaab àddina duñu isaab àdduna duñu isaab àllaaxira buñ joxee sëriñ bi suñu bopp buñ joxee sëriñ bi suñu bopp tege ci jub tege ci jub tege jaamu yàlla tege ci jaamu yàlla tege ci taalibe tege ci taalibe lu ñu digal ñu def ko lu ñu digal ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko lu ñu tere ñu ba ko lu ñuy ragal lu ñuy ko gis fii duñ ko gis ëllëg ku joxe sa bopp nag ku joxe sa bopp nag nekk ci sa bopp. nekk ci sa bopp. lu la dal yaa ko teg sa bopp. lu la dal yaa sa bopp. bi moom. sëriñ bi moom. doon mën na ko. lim doon mën na ko. lim war a wax wax na ko. lim war a wax wax war a def def na ko. war a def def na ko. teg tànkam ci yoonu siraatal mustaqim. teg tànkam ci yoonu siraatal mustaqim. ku ko dénk sa bopp. ku ko dénk sa bopp. te déggal ko. ko déggal ko. mu ànd yow ca loolee. mu ànd yow ca loolee. boo ko defee. boo ko defee. bu ëllëgee. bu boo gisee sëñ ma ma ndumbe. gis seexul xadim nee na da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nee na boo gisee la nga bëgg lépp dana jag nee na ku bàyyi yoon wi jaar ci ñal wi jaar ci ñal wi lu la fakkatal wala lu la jam bul mere kenn yaa ko teg sa bopp sëriñ bi mu ngi ñaan ñun ñëpp suñu borom bi teg ñu ci yoonu ñun ñëpp suñu borom teg ñu ci yoonu jub sàmm ñu aar ñu aar ñu ba tege ci yoon wi ko gënal. ba tege ci yoon wi ko gënal. te jëf ci jëmm yi ak kattan ak kattan. ak jàmm ak xeewal. ak barkeel liggéey ba kenn ku nekk la nga yéene ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikhul Khadim suno borom bi jàppandal ko te gërëm ko wasalaamualeykum. amiin. amiin raayoo leen yéen ñëpp waaw na ñëpp